jalla wa ala bi mu araamalee alali ndona daf ci génne dara muy alali ñaar ñii muy jigéen ak jirim jigéen ak jirim ñoom la ñu gën di lor ci wàlli ndona looloo tax alayhi wa taxaw dem tàllal loxoom yu tedde ya ne allahumma inni uxarriju xaqa daifayn alyatimi walmara yow sama boroom day nee ne maa ngi jokk bakkaar ci képp koo xam ne yaa ngi sànk axu ñaar ñii muy jigéen muy euh, jirim ak jigéen mu ne na ngeen ka daw maa ngi leen ciy jajj maa ngi koy jottali sama boroom képp koo xam ne andi nga fi axu jigéen ëllëg wala nga indi fi axi jirim di nga ko réccu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxaw pour layal leen ñoom sama borom ba di leen défendre rawatina jirim jirim yi orphelin du mooy noonu mooy ñi nga xamee ne seen baay faatu na bàyyi leen ñu doon ay xale yu ndaw majeur guñ tey bari na ñu ngi wuxu ci biir kër yi kenn déglu leen parce que du actualité si seen gisuñu bopp yéen jirim yaa ngi dunda loo xam ne maara day taali dajeeg ay xeeti tilla yoo xam ne ay jëmmi nit lañu yor war ci seen kaw war ci seen alal di ko lekk laata ñuy màgg alal ja jeex na ma wax ne ñoo ñoo ngi yuuxu fu ne bi nga si gis koo xam ne ba baayam génne àddina bàyyil ne ka lu ne bàyyi ko bàyyi tëxam wala ndijaayam wala fereeram wala ku mu mën a doon mu jël alalam di ko jëfandikoo sànq xale boobu ba xale bi buy màgga dootu fa fekk dara dinañ ci ñëw tuuti si kanam incha allah du fa fekk dara loolu di musiba mu réy réy réy sama borom ba jalla wa ala artuñu ci loolu suñu boroom artu nañu ci alxuraan bu dul benn du ñaar bu dul woon waxtu wi dinañ la xamal wala ñu xamal suñu bopp xamal ñépp ne alxuraan dafa fees del ak waxtaanu jirim lan moo tax duñu ko wax moo xam jirim bu góor bi la moo xam jirim bu jigéen bi la ñii yàlla ak yonentaam ñoo leen di défendre képp ku laal seen dara ci lu dul dëgg di nga daje ak suñu borom ba subhaanahu wa taala képp ku jalgati ci seen alal dara di nga daje ak suñu borom subhaanahu wa taala suñu borom ba dénk ñu ñu rafetal jëmi ci jirim yi ni mu ñu dénk ñu rafetal suñuy waajur ginnaaw ba nga xamee ne. wax na ne waabudullah wala tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana mu ne wa bizil qurba wal yataama nee na na ngeen jaamu yàlla wéetal ka te bu leen ko bokkaaleeg dara nee na ngeen rafetal jëme seen waajur waaye itam ngeen rafetal jëme ci jirim yi loolu it waxoon na ko ak waa bani israil suñu borom ba dellu ginnaaw dénkaat ñu mu ne wa an taquumu lil yataama bil qist maa ngi leen di dénk ngeen taxaw jirim yi cig njub ak ak maandute mu dellu ginnaaw ne eh, eh, wa yasalunaka anil yataama qul islahun lahum xayr ñu ngi lay la ci mbirim jirim yi ne ngeen yéwénalal leen seeni alal defaral leen seeni alal mu ne loola day moo diw yiw wu rëy rëy suñu borom ba jalla wa ala ëlbëtëku taxaw fegal jirim yooyu lor ne nañu aar seen alal bu ñu leen aaralee seen alal bu ñu demee ba doon mag dellu ginnaaw seenam xel mat sëkk nañ leen delloowaat seen alal suñu borom ba jalla wa ala wax na ne wala taqrabu maalal yatiimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashaddah nee ne bu leen jege alalu jirim lu dul ci anam gi nga xamee ne mooy li gën a rafet maanaam booy dugg ci alali jirim ñu di la ko dénk moo xam yaayam ga moo xam baayam ga moo ah, mam ah, safurla moo xam rakkam ga moo xam magam nga wala ndi jaayam nga nee ne kooku daal dul jege alalu jirim lu dul jege goo xam ne danga koy rafetalal di ko defaral